wax daal mooy rafetlu encore une fois lii nga xamante ne moom moo ñëw ci askan bi ndax euh, ñëw na ci moment bu baax moment bi nga xamante ne population bi soxla nañu ko soulagement la parce que boo leen doon ñëw gis ngeen yoon bi métti na euh, kër yi fees nañu aussi te souvent ñun moom damit dañoo yàgg am ay problèmes yu demee nii donc lii moom bu ñëwee moom vraiment satisfait la ci loo xam ne vraiment pour population bi yëpp la quoi. kontaan bëgg ci lool mu doonoon loo xam itam lu ñu bëgg la suñu doom. dëkk ci koñ bi di doomi dëkk bi ñu nekk fi ak ay waajuram mu ñëw def acte bu mel nii duñu ko def lu dul saluer ko muy acte bu noble nag ndax ku nekk gis na koñ bi ni mu mel ak am ndox kon bu amee initiative ak xalaat bu rafet ñëw jàppale waa koñ bi du ñu mën a def lu kontaan di di ko ñaanal nag sama borom dolli ay xéwalam yokk wërsëgam ba mu li mu bëgg ci koñ bi mu am ko ndax lii lu ñu bëgg la waa ndimbal bi moom dañuy sant suñu doom Mati Trois Pommes vraiment lii lu ñu yaakaaroon la ci moom la ci taxawaayam ndax euh, lii nekkul loo xam ne lu ñu bett la ndax xam nañ ni doomu sam-sam la doomu koñ bi la te lépp loo xam ne luy defar gox bi moom yàgg nañu gis ni mébétam ak yéene mi ngi ci kon nag bu ñëwee andil ñu tey pomp bi euh, pour ndox mi wax dëgg yàlla dañ koy sant di ko ñaanal xam ne suñu doom souvent bu ñu matériel dans deux mois donc je trouve que lii moom bu dans de très bonnes conditions jox ko sur des mains et puis s'il y a un comité de suivi bu ñu mën vraiment boo xamante ne yi nga xamante ku baax am am ko ci quartier nañ ko tek ci ay loxo yu woor ça fait bu ko defé 2 3 mois mom bu ko gisé du am gatché ci lool man na wàññi jafe-jafe yu bari ndax ku nekk xam né ne bu tawé mbéd yi day fees am ci kër yo xamné da fay inondé ba fees té machine man na aspirer ndox mi ba kenn ku nekk am yoon bo jaar lool preuve bi may barki démb la taw ba légui té gis ngeen bi ngeen ni ñoo yoon ni mel kon lool lu am importance ñuy sante Mati bu baax diko ñaanal itam sama borom defal ko lu kawé ñortam ba ëlëk mu indi fi lu ëpp li yalla man nako yalla nako def ñuy jankonté ak jafé jafé ci wàllu ndox mi ndax fi gis nga bassin baangi ni nii ndox mi fi la daan jaar du def tout direct droit du dem ci bassin bi wax deug yalla mais gis nga ko bu da fay calé ak yenen mbéddi tal bi mom gis ngeen ko bassin ak mbéddi yépp da fay inondé amna ci kër yo xamé ni da fay fess jël ak ndox kon bu ñu mënee am machine yo xamé ni day aspirer ndox mi yakana naa loolu sant rek lañ ciy def parce que wolof Njaay na avant tout la santé té ndox ken mënu dëkk ak mom yo yaangi fi yëpp a ngi fi kon ku la tàggaleeg loolu da koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal yàlla dële jàmm. dañuy jànkonte ak problème mu ndox yi ci kër yi eh, di ko jànkonte ci mbedd yi te loolu bii moom dimbal la ci. waaw am na ci ay kër yoo xam ne ba fii mu nekk nii ndox mi ngi ci seen biir néeg yi mais kun bu ñu amee lii ñun dañuy sant tey ñaan yàlla rek yàlla gën ko li moom ba nga xam ne dina def loo xam ne dina ëpp suñu yaakaar ci moom. à deux mètres nous avons un poste de santé un poste de santé impacté par le CSE qui est une entreprise qui est là malheureusement il poste y a un centre polyvalent qui est là construit autour de 118 millions malheureusement inondé donc jeudi, à à mon ñu famille amuñu lu donc nous avons ñu que même les maisons qui nga été c'est dañ motivation pour les malfaiteurs donc nous avons vraiment des voies et moyens ça nous permettra vraiment de libérer les gens.

rawatina nag am nañ ci suñu côté bi comité de vigilance boo xam ne ay xale yoo xam dañuy volontaire guddi di monter ci biir kër yi ah te la yàlla xam doy na benn yenn kër yi ñu ngi fay yenn yi duñu fay ñooñu tam ku leen jàppale te yàlla tax daf ci dañ ciy am kontante loolu mooy suñu jafe-jafe mooy problème mu ndox mi ak problème mu nan lañuy def ba jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci gox bi ñu am ay financement yoo xam ne dinañu mën a liggéey ndax liggéey dafa nekk loo xam dafa am solo si doomu aadama bu ñu toogee liggéeyuñu rek jafe am jeunesse baa ngi ni ku ku ci xey di nga liggéey mais nak bëgg nañ ku leen appuyer aussi maison de la femme bi maire Coumba Ndoffène Fall moko fi defoon muy maison de la femme annexe bi ñëwee groupement de femmes yépp dañoo adhéré presque l'op 33 groupement de femmes ñi ngi fi ñoo adhéré man may trésorier général bi mais bi yalla dogal mu wacc amuñu benn accompagnement man mi 2006 la am euh, GIE mais mosuñoo am financement à part financement réseau des femmes bi ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao nga xamé le maire fenfal chaque année mo leen di subvention à hauteur de 1 million de francs CFA ak li activités yi nga xam ne la femmes def kon bëgg nañ ko ñu accompagner jeunes yi itam emploi des jeunes yang fi bëgg nañ ñu jappalé leen ci emploi des jeunes yi soxla nañ ko bëgg nañ ay financement yu ñu mëna le poste mérite beaucoup plus parce que ça constitue plus de 17 quartiers et que 17 quartiers y été au niveau du poste donc actuellement bu amul poste de santé les gens vont aller dans d'autres zones hors zone de l'Idon. donc même l'ICP du mu la a joxal orientation yi nga la preuve si ñu demee les réunions de coordination toujours on nous met en rouge parce que nous ñu effectivement lan lay ñëw ci poste bi ak lay dem Rochette wala lay dem donc On dañ ko def de manière spontanée Euh, ndaxte dama ñëw gëj naa fi ne depuis des années des années premier jour ma ñëw fi gis koñ bi nu mu mel man maa ngi fàttaliku fii laa fii laa yaroo ba may am ñaar fukki at fii laa daan romb ak sama papa di dem euh, di dem pour dem école euh, gis nga na meloon jamono boobu ak léegi wuute na te dafa mel ni dafay gën di day gën di metti daal ci ci ñoom 2014 maa ngi fi woon inondation yi amoon na mais quartier yi dafa gën a métti daal yoon yi dafa gën a dafa gën a doy waar daal vraiment gestu leen dafa dafa jot ajjuma bi passé mu taw euh, nga war a génn mu tëla noonu ma woowaa mairie def lu ne pour ñu indi ñu ay moto pompe mu jafe lool ci sama live dimanche bi passé ma wax ko ñaxtu ba ñëpp dégg ma dama pare live rek mu am une bonne volonté euh, monsieur Dora Gueye ma di ko remercier au passage ma mati lan nga def pour sa gox ma ne ko pour l'instant di ay ñaxtu daal damay ñaxtu ça ça voilà mais ce teguguma dara ci sen loxo ñu moto euh, voilà donc pour nous mi et tout manque ndox mi et tout aussi une bi pour biir kër yi la bu pour également euh, et tout cela donc on l'a fait de manière spontanée euh, sans calcul ni rien du tout moto pompe pour quartier Samsung 1 mais également les environnants

donc euh, ki wax sank di tata Ndama Diouf ah ak ñi andal ñom tata mam Sey buma daan romb seen buntu keur la daan romb ndeysaan tay souvenir yo xamne buñ bu fi ñom ñep dama leen di remercier te kontaan naa ci lool lool lool. euh lima bëgg mom moy gannaaw moto pompe yi ma ci doon waxtaan ak mom ñu ne pourquoi pas ñu jappalé jigen ni parce que depuis 2014 mu mako doon wax mi ngi out ay financement ñu ngi leen di dik waye duñu gis dara té nak jot nañu gëstu banlieue bi du rek quartier Sam Sam ñu gëstu jeunes yi gëstu jigéen ñi kon nak aussi dinañ jappalé 23 femmes moy ñaar fukki femmes à à jigen ñaar fukki jigen ak ñett ñu jappalé leen ci ay financement donc jigen yoyu dina am ay xalé ay jeunes également ak mom ay moromam yo xamné dañuy liggéey ñoo yoré seen seen seen kër di jappalé seen seen jëkkër donc loolu lu ñu koy défé mom moy programme bo xamné déroulé ko 6 mois bu ko defee ak sama plateforme nañ dem ci ñom ci femmes yi ñu financé xool lan lañu ñu euh, liggéey ci xaalis bi su ko defee nag bu ñu defee 6 mois def bilan bi xol ñeneen jigen yi nga xamné mën nañ leen financer yeneen jeune yi nga xamné mën nañ leen financer euh, su ko defee voilà jappalé jigen ñi jappalé xalé yu jigen ñi également ndaxte booy gis ne euh, gaal dañuy dem ci gal yi léeg-léeg nga gis xay xale yu jigen diko ñakanté ñàkkante ni té te loolu mu defe na buñu jappalé jàppalee jeunes yi dinañ toog ci dëkk bi ma terminer rek ci benen volet volet bu mujj bi mom moy ak sama sama structure bëgg nañ également jappalé immigré yi nga xamanté ne xam ngeen né Europe légui metti na metti na lool léeg nga gis sa moromu papa sa moromu moroomu yaay bëgg a mu donc pourquoi pas ñu ñu collaborer ak une institution une structure yi nekk de ci dëkk bi pour ñu faciliter leen retour ñu mën am également financement pour nous a au mieux. mi euh, c'est vraiment de manière spontanée vraiment man ba ma duggee ci oto bi di ñib di ñëw ci guddi gi yàlla xam na sama yaram dafa daw parce que euh, doy na waar dal nit ñi nit ñi sonn nañ nit ñi sonn nañ du fi fépp la ci quartier yu bare bare mais dañu garder sen dignité comme ni ma ko waxee ja seen ngor kon nag dafa jot aussi femmes yi di wut ay financement ci dëkk bi lañ dëkk ñi ñu tabb ñooñu dañuy liggéey askan wi dañu war a jàppale askan wi voilà kon nag dañoo jot lii nga xam ne def nañ ko ak financement bu ñu bëgg a def pour femmes yi may lancer un message vraiment autorités yi nga xam ne ñoom euh, euh, euh, mun nañu depuis 2014 ñu ngi daw seen ginnaaw ñu gestu leen te jàppale leen loolu daal laa am lu ma ciy wax. Euh, donc euh, aucun euh, amoo ci benn xalaatu politique politiquement nay leer <laughs>